الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورحاه وأيده ونصره لن يكتي كادوي تي ديغالم اتي تورم صاف كو رك تي ديغال لي ما يوني وون ما جوت لكو بوك تالبي ييب باج ماغلي دار خروس با تي غينا سوسا ما ورون كو تيا واخ واي يال دف فانشاه الشيطان ذكر ربه كو سوي بروم واخه انداخ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 ba mbass mi amé ci réew mi boba taxaw ngeen ci taxawaay bu rafet té bo lu né dégg ngén ko way ngén xamna lu ngén mëna dégg rek Sëñ Touba dégg na lu ko bu tamu ci soxla kon lolu li am solo rek moy ndigal té yéne gi ci kon sëriñ bi néna na ma jité cant gi ngërëm gi ci yeen ak ñeen wu xéxal ñëpp ak ñeneen ci la ndax nak juma ji nañ xamné ne ndigalu Sëriñ Tuubaa fi bàyyi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 ñëpp ñu sax ci di ko liggéeyal waqdi hawaaij allasina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh